l'artilleur du Baol combat bu nga xam ne Luc Nicolaï l'homme des grands événements moom moo ko tëgg boole ñaari xale yi nga xamante ni nii kenn dootu leen présenté ci làmb bombar Bombardier dafa nekk mbër bi nga xam ne tàkkusaan june am na ko fi mbër mu ñu ko jox say mbokk duñu nelaw Tapha nekk xale bu nga xam ne dafa nekk ci yoon liggéey ba fekk si Bombardier fi nga xam ne moom mooy ci la cour des grands Tapha Tine dem États-Unis préparé combat Bombardier dem fi nga xam ne moom itali Italie préparé combat ma laaj Bombardier mu ni ma Malick combat bii bëgguma ci bëre xeex rekk laa ci bëgg ma laaj tafaatin mu ne ma Malick combat bi bu fekkee ni bombardier loolu la ci bëgg namu ca yabu ca ku ma ba max ma narmee ca kon mu nekk combat bu nga xamante ni nii mën nañu xalaat ni combat bu rëy lay doon drapo vieux Sagne Faye la ñu war ko def au stade Demba Diop le 24 bombardier le B52 de Mbour fekk na la sa sal ngay entraîner ngani ma combat bi bëgguma ci luddul rag ba naw xex ak sa way yaakaar na ni tungu di net du tew ñuy natal mbër ngi ni yaangi ni man nga ko waxoon wax ko ko mom mu deg ci kanamu askan bi euh, assalamu alaykum ma ngi len di nuyu di nuyu senegal yepp waa jëlal bobu alaikum, wa Sénégal ku si que maa ngi lay s'il vous s'il vous plaît s'il vous plaît non non non non non non oh bu ñu bëggee waxtaan bi neex dañuy dégloonte s'il vous plaît. non lépp Moi, je dinañ ko wax Moi, que son adversaire contre mon ñu Euh, ku ne xam na ni man doomu Bawol laa parce que maa ngi dëkk fii Touba Dieye donc tey li ñu fi indi tey contrat la rek pour wax mais jëf ji dëgg-dëgg le 24 juillet le 24 juin la li ma la waxoon Malick du ma ci dellu ginnaaw man kaay xeex moo ma gënal kaay lekk te combat bii ni ma la ko waxee noonu laa koy jëfee combat xeex la ba kenn tëdd du ma si dellu ginnaaw maa ko wax. laa ilaaha illallah Bombardier nee na combat bi combat xeex la ba kenn tëdd waaye ki nga xam ne moom la ko seqal mooy le géant du Bawol mooy Tapha Tine Tapha dégg nga sa waay li mu wax wax na ko ci tele bi wax na ko jàkkaarloo waat na ak yow wax ko nee na xeex ba kenn tëdd loolu la bëgg sa diggante ak moom ndax pare nga pour wuyu ko ci loolu waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ku ne sa tur ak sant di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu xalifa murit bi sëñ Sidi Muxtaar di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wer di ñaanal kilifa diini yëpp waaw bu loolu weesoo nag damay sant yàlla jul ci yonent bi sant samay waajur bu baax a baax di sant sama supporteurs yi jógee Dakar di suba léegi gaayen bi nag maa ngi koy dégg li muy wax nee na day xeex ak man ba génn bi man bërëb bi ñaar la bëre dóor la bëre bi dama ko ko tejal mënu fa am dara li des mooy ñu def ci soox yi man ak moom bu mu wëri dinaa ko dóor ba mu tëdd yaa laa ilaha illallah mais combat bi combat bi metti na ba pare Bombardier nee na kaay xeex moo ma gënal kaay lekk Tapha Tine nee na ko da xam ne bu ñu bëree doo am dara nga nañu xeex kon xeex boobu dinaa la ci fekk si te dinaa la dóor ba nga tëdd dóor Bombardier ba mu tëdd nag ah, loolu doy na waar Bombardier. Euh, Malick bi mu taxawalee combat bi man maa def benn sorte ma ne leen dafa dekkal guerre 14 18 wala 39 45 xam nga lu tax euh, depuis deux ans mu may dëkk fu mu génn sorti nañ ma jox spoilu nañ ma jox bombardier depuis 2 ans maa ngi koy pare man parce que xamona ay dañ dajé man ak mom xam nga lu ko dese si combat bi moy wax ak signature contrat yi mais xam nga ni ku taxaw naan ay bombardier dama lay door ba nga tëdd lolou wax di yàqu rek waaw waaw comme limu wax rek lam moñu boré man dëkkuma ko ba mu daanee cek ma ñëw daan cek mo mu dem bëreeg yi ni ñu daan ko yaa ngi dégg man ma ñëw duma elton daan ko moo la gënoon a xam ne dinañ daje lan moo ñu boole man wala bokk ah. moo tax ñuy bëre moo tax may jàkkaarloog yow defanteeg yow fas yéene laa daan la 24 mai yaa ngi dégg yeah 24 juin ok 24 juin oui ok kon nag bokk yi euh, waaw ah bombardier nee na pareegul ci wax ji xaar leen man kii waxam ay ree la ma def sax xamul tax moom si boppam xam ne ni mënuma daan xam nga tey li ko dese rek mooy nee naa la wax moo ko dee signature contrat mais moom bu ñu wéetee ak ñi koy entraîné xam nañu mënuma daan. loolu foo teg mënu laa daan Tapha mën na bëre mën na xeex. moom mel ni midi laa la wax. te le 24 juin le 24 juin soreetul. jaratul wax. mais Tapha ñëwal ñëwal ñëwal nga jàkkaarloog sa waay bi. mais parce que Malick xamul kan mooy Tapha Tine. ah xamul kan mooy Tapha Tine loolu tax mu ne mënuma koo daan 24 juin sorewul yaa ngi dégg. soriwul bés bi soriwul suur boobu lu mu indi ma taq ci rip yaa ngi dégg lu mu indi naay ci taq rip dinaa ko duma dinaa ko daan incha allah. kii kii lu mu indi attanu ko bu yeboo bu arab bi sifflé na teel a tiré li mu yor parce que suma ko tiré li mu yor du jóg na njëkk a tiré moom mais su ma xaaree ma tiré du jóg du tiré. gars loolu garaaw na. loolu leer na Luc Nicolaï loo ciy sànni ci kàddu ci diggante ñaar ñi mu nekk drapeau Vieux Seigne Faye waa drapeau Vieux Seigne Faye rek laay wax ndax Vieux Seigne Faye ku jara dekkool delloo njukkal la mais ñaar ñi moom lu ñu wax am naa yaakaar ne doy na sëkk amatuma dara lu ñu ci dolli nañu xaar le 24 juin ñu jëfee li ñu wax lépp jaar ci yoon alhamdulilah la bataille verbale a fait rage Malick waa ji du xeex kii ki ñëmu ta taxaw tafaatin di fayet gauche droite yi dem non non non du ko def bu koy def di wëri lu leer la la wax <laughs> malik malik ki day wax waxu xalé rek mais boy bi ñëmé na la lool déggo li ma la wax xam nga ku ku nara tuxu ak ku rep ñoo dañuy wax rek loolu moko ko na wax rek xam nga di bu toge naan ñima wuma xex loolu wax jaxula malik na wax leneen way te bàyyi loolu mo gën mais on fait comme ça ñu dem rek bu mu wëri ci xeex bi li mu wax na ko déggal bu mu wari ah, léegi léegi nañu def léegi Nicolas mu ngi nii toog mu ngi nii taxaw di ñu dégg nañu den na dem CNG sunu reliquat mu ko fa sunu reliquat mu ko CNG ñu signé sama manager ak manager am signé ñu xeex premier round bu njëkk bi amul bëre ñu xeex dix minutes njëkk yi ku si njëkk a song sa mborom bu jot sa reliquat looloo gën a dee. pare nga ci loolu. yombal naa ko ko d'accord naa ko.